jërë ngeen jëf muy reetaan ak Naby Keita muy xàqatay Aliou Cissé Kaba yu dóor seen masque yu ñuul kukk boole kook di xool fu sori yi mooy photo yi record yi ne kay xëy ci xëtamu njëkk max Guinée Sénégal bi war a am tey jii ci une la journal bi di waxtaane ba di ñu wax ne ñoom ñaari équipe yi ñoo tolloo ay point ku ca nekk ñett nga am jongante tey bii ku ko gagné yaa nga ci huitième de finale yu coupe d'Afrique ba journal bi boole koo kàddu yéenekaay jël kàddu gi di wax moom it ci diggante Sénégal gi ak gine bu tey bii nee ñu ngir gagné ko dem ci huitième de finale yi loolee la ñuy xaar ci guney Aliou Cissé yi Sud Quotidien nañu diggante Sénégal ak Guinée tey ci digg bëccëg gi ab derby la bu yu bari bokk na ci fexe ba jël première place ci groupe B lay doon ci diggante ñaari ancien parisien yi di Aliou Cissé ak Kaba Diawara waaye it naruta yomb ci diggante ñaari footballkat yi Liverpool yi mu di Sadio Mané ak Naby Keita la Sénégal nañu ak lu ci mën di laxasu daal li ñu xaar ci gaynde tey ji bokk na ci ñu football lu leer lu mën a dal am xel mel yéenekaay bi di bés bi le jour gis ne senegal ak gine ñaari dëkkandoo la yuy laale tey ji l'observateur di ñu xamale du yomb nag ndax équipe bu Sénégal bu déséquilibré wu ndax i absence moo nara a football ak Guinée absence yi ñu nar a gën a sonal ñu nar ko gën a bàyyi xel yéenekaay bi nee nañu moo di bu Idrissa Gana Gueye du mën a football ci match bi ndax dafa corona équipe bi ak déséquilibre gi ci am entreneur bi di Aliou Cissé mi ngi koy dëggal ci xët mu njëkk Soleil national ginnaaw kan bi ñu wax ci beneenub cas di campagne électorale bi ci candidat yi samp seenum dënd ca bu Kaolack kenn ca di Fadel Baro moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien moom candidat bu coalition jàmmi gox yi ma nga fa grand bubbu lu rëy koppati fa lu toj boole ca kit di wogo suum ngéwél dellu si na ci yéenekaay bi ci programme am ca Kaolack leeral fay li ko tax a dugg ci langu politique gi ba tax mu taxaw di laaj Kaolack ñu romb Kaolack jàll Sokone yëral xët mu njëkk Source am na fa benn waay bu ñu naan Mamadou Moustapha Guèye di le maire sortant yéenekaay bi nee nañu mooy candidat bi gën a ci local yi li tax moo di ñoom Abdoulaye Wade di waa wàllu Sénégal ñoo ko pare na ca commune bu Sokone ba pare waa Benno Bokk Yaakaar investir ko ci seen liste ca département bu Foundiougne maire bu Ndakaaru mbër mi fi Benno Bokk Yaakaar teg di Abdoulaye Diouf Sarr sursoit nee nañu mi ngi mel ni fitt gu mbër sànni ci campagne électorale bi caravane la doon def démb ñooñu aaranu ko mëndoo feen Diouf yi defal ko mobilisation bu rëy mu jaar ca marché biscuiterie nit ñi dagg defum ndiiraan topp ko di ko tàccu ak di ko bravoure mu diggee fana suñu ko falee maire de Dakar moom Abdoulaye Diouf Sarr dina moderniser marché Ngelaw 2 ak bu baasam defaral leen toilette ak li nga xam ne moo di barab yu mën a fajoo ba noppi nag dina taxawal fond di koppar yoo xamante ne ji dañu ciy financé jigéen ñi ñi lànk ne duñu signé charte non violence gi ñuy wax ci réew mi ñoo ñee suur soi nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr yàq na leen lool wen wu ci dalde keneen ku caravane lu rëy démb ci dëkk bi yéenekaay bi di suur soi nee nañu moo di Pape Diop moom candidat bokk gis-gis bi ca mairie bu Ndakaaru ca Wakaam fa la ne woon démb askanu Wakaam teeru ko fa teeru bu amul fenn yéenekaay bi nañu njiital convergence démocratique et libérale gi di Pape Diop réccu lu mu doon demee ca Wakaam amee na fay militant amee fet ay yu mag yu dem ànd jeeg ñoom ku ci mel ne Victor Sadio Diouf Sarr Barthélémy Dias Soham Wardini Doudou Wade ak Mame Mbaye Niang La Tribune nee nañu ñii ñooy ñeenti ñeenti ñeenti candidat yii xëccoo maire bu Ndakaaru yenekaay bi teg ci di ñu xamal ñoom ñeenti ñooñe ana ku ca nekk fën nga mëne ki mën ñëpp mu ngi ci réew mi quotidien mu di benn mécanicien bu ñu doon àtte démb ci tribunalum Ndakaaru li tax moo di moom mécanicien bi dafa am benn femme bu mu doon liggéeyal femme bi xëy dàq ko mécanicien bi mer ci loolee bëgg a yu tax mu bàyyi ba ci ëllëg sa mu dem fekk oto femme bi dagg frein ya bënn pëna ya thank you